ñun ñii ñëpp ngay gis nii dañu am benn problème boo xamante moo ñu naqari ñu koy dund pendant trois mois ñu ngi koy dund ñetti weer ñu ngi koy dund ci problème mu jafe-jafe problème mu salaire parce que contrat yi ñu defal seulement que baaxul sax mais ñu ngi koy dund parce que lu tax ñu koy dund ay père de famille lañ ay responsable lañ ñu di ko dund ñetti weer nag ñu koy dund depuis le deux bi ba léegi nii ñu nag chinois ñi ngi am ay jafe-jafe ci problème mu salaire yi dem nañ inspection de travail inspecteur bi ñëw na fi constaté na waxtaan nañu ak chinois yi déggoowuñu ñu jógee fii dem ba Thiès bi ñu demee ba Thiès waxtaan déggoowuñu tamit ci waxtaan bi point yi ñu déggoo ci point yi nga xamante ni ci lañ déggoo ci point yooyu noonu bi ñuy ñëwee fii ni chinois yi dañu ñoom point yooyu noonu duñ ko respecté point yooyu ñoom duñ ko respecté léegi ñu wëlbatiku indiwaat seen yeneen argument point yi ñu déggoo Thiès point yi problème mu salaire la maanaam nañu defal suñu sur salaire parce que ñun dañu signer ay contrat ci biir contrat yooyu noonu ay journalier la ñu jëlee fii nii loolu dama bëgg na ko état bu Sénégal xam dañuy defal ay contrat fii booy ñëw xëy xëy rek ñu jël la da ngay ñëw ñu xool sa qualification jël la ci diplôme bi ñu la jëlee léegi boo ñëwee ba fii nii ñu defal la contrat contrat bi ñu lay defal amul retour doo sax gis kayit bi ñu téye seen contrat léegi ci biir liggéey bi ñu lay liggéeyloo comme liggéeyu journalier ñun ñëpp moom la ñuy liggéey te fii ngay gis nii sama ginnaaw ñii ngay gis nii ñëpp ay qualification lañ yor am na conducteur gradeur am na conducteur chargeur compacteur machine électricien soudeur tôlier mécanicien ñun ñooñu ñoo nekk ci chantier bi ak ay ouvrier ak maçon ak pneumaticien ak chauffeur ñun ñii ñëpp ngay gis ci chantier bi ñun ñii ñëpp ñoo même catégorie 5A la ñuy defal ñun ñii ñëpp ñun ak maçon yi ak ouvrier yi ñoo yem même catégorie 5A loolu nag la ñuy xeex fii ne ne loolu du yoon du dëgg du yoon parce que ñun ñii ñëpp mënuñoo yem qualification ñun ñii ñëpp mënuñoo yem qualification bu ñu damee ba nga xamante ni kiy dawal pick-up bi moo ñu ëppale salaire ñun ñu yor Gros Bordeaux chantier boobu teguwul ci yoon ñun nag li ñuy ñaxtu di ko xeex grève fuñu dañuy ñaxtu problème mu salaire la ñuy ñaxtu ñun ay sénégalais lañu ay citoyen lañ ci doomi dëkk bi chinois yi mënuñoo jógee Shanghai ñëw fii Sénégal gii di ñu noot pendant trois mois ñi di ñu noot état bu Sénégal toog di dégg lii nii xam lépp ba pare na kell ak moom. amuñu fenn fuñ ko xeexee nag lu dul ci télé yeeg rajo yi ci lañ koy xeexee dem nañ inspection de travail waxtaan nañu déggoon nañ ci yenn point yi mais Chinois yi dañoo dëgër bopp nangu wuñoo respecté benn point yi fii nii ñun nag duñu ay esclave duñu ay jaam ay nit lañu ay sénégalais lañu li ñu xeex dañ koy xeex dañ koy xeex li ñuy xeex dañ koy xeex problème mu salaire la ñuy xeex moom moo tax ñu taxaw fii nii Chinois yi nag dañoo dëgër bopp ñoom nanguwuñu ñu waxtaan parce que dañuy indil benn fooy boo xam ne seen argument lañ ci teg amuñu droit wax télé amuñu droit wax rajo chinois yi ñoom ñooy ñan ah ñoom ñooy ñan ba ne ñun duñu wax télé duñu wax rajo ah fan lañ ko teg Sénégal fii boo fii ñëw dañ lay jox texte yëpp jox la code de travail bi jox la article yeeg loi yeeg yëpp nga war a doxee ci noonu lu tax ñoom respecté wuñ ko mais ñun suñu ministre bi lan lay jariñ suñu ministre bi ñun lan lay jariñ ñun employé yi bu fekkee ne dañ ne Sénégal wul moom fii dara doxu fi na Macky Sall xam loolu noonu fii ay ndaw rek fi nekk ay responsable ay borom kër ñun nag duñu mbëkk yi gaal yi duñu sàcc jaay ñu doro xeexuñu xoloowuñu gëreefuñu tamit dañuy ñaxtu dañuy ñaxtu pour salaire dañuy ñaxtu pour ñu fay ñu salaire bu baax ñun duñu ay journalier journalier moom mooy liggéey une semaine nga koy defal pointage bu aju ma jotee nga fay ko mu dem ñibbi ñun duñu ay journalier ay qualification lañ yor ay diplôme lañ yor nañu na ñu fay loolu moo tax ñuy ñaxtu mais ñu grève ñu dem nañ inspection de travail waxtaan nañu chinois yi respecté wuñ lañ fa jëlee ah lañ fa jëlee respecté wuñ ci benn norme ñun nag xulawuñu xeexuñu ñu xeer taaluñu pono baarewuñu kenn tous les jours la première bala 31 dañ koy liggéey journée sur journée heure pour heure wàcc xoolal bàyyiwuñu benn journée bàyyiwuñ ko lundi ba dimanche dañ koy liggéey te li ñuy wax nii nag am nañ ci ay preuve yu leer nañi inspecteur bi ñëw na fi commandant brigade gendarmerie bu mbuur ñëw na fi def nañ ay médiation mais dara doxul parce que chinois yi dañoo dëgër bopp yaa ngi dégg chinois yi dañoo dëgër bopp ñun nag dañoo sonn dañoo tàyyi sonn nañ tàyyi nañ lii nii li ñu bëgg a xam na ci ministre bi jot na ci ministre bi jot président Macky Sall na si jot mu ñëw régler lii une bonne fois mu jeex ñu liggéey concentré wu ci liggéey bi am na xam ne ñu leen di dàq am na si ñoo xamante ne nii contrat un mois lañ leen defal ñu ngi leen di dàq fii contrat trois mois lañ lay defal bu jeexee ñu defaat trois mois bu jeexee ñu defaat trois mois ba kañ ba mais loolu ba kañ loolu ci ban réew lañ nekk loolu ci ban réew lañ nekk Sinoa yi di def lu leen neex ñu leen di seetaan pour lan lii nag daf fi war a jeex daf fi war a jeex lii daf fi war a jeex ñun nag xuloowuñu xeexuñu sànniwuñu xeer taaluñu pono baarewuñu kenn dañuy ñaxtu. li ñuy ñaxtu nag pour sunu intérêt la ñun ñii ñëpp ñun ay doomi réew mi lañu ay senegale lañu dëkk ci dëkk bi li ñu bëgg mooy na ci président bi jot na ci état bi jot xam ne fi lii moo fi nekk ñun lii lañuy ñuy dund bii mooy troisième fois ñuy def lii nii le deux le ba léegi nii le ba léegi nii dañoo faye ko man mii di wax nii bi ma faye ko man damaa yor jabar yorum njaboot bi ma faye ko samay doom fayu ma sax seen école te sabaru camion la bi ma fayagoo bi ma fayagoo salaire laa la wax sama samay doom fayuma seen école sama ravitaillement jëndu ma ko mais loolu taxul may liggéey léegi sànq baa ngi nii employé yi ni amul kenn ku ci yor tenue duñ la jox sécurité duñ la jox gilet duñ la jox casque duñ la jox dara amul hôpital amul infirmerie amul dara da ngay tëñëx tëñëx rek boo gaañoo yaay faj sa bopp boo amee ordonnance yaay faj sa bopp loolu mooy lan waaye loolu daf fi war a jeex daf war a jeex sonn nañ taayi nañ.